alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifaad bi furudin wa sunan sakartuhu liannu qad saahani liwatani bihi nafa ma anfani alhamdulillahi alkarimi silmilan wa ala alihi wa tabiihi wa tabiihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ardihi wa liqaihi bokk yi gannaaw bu nu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonantam ba seydina muhammad noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal bokk yi nun ñi nga xam ne alquran moom lañu mooy def ko buum gi nga xam ne du firinciku du gaweku du toq dara waruñoo jaaxal ndax kat alxuraan moo xereñe lépp moo yoon wi yàlla teglu ab tànkit ba ba ñuy ba ba ñuy dem fa mu bëgg ñu dem fa ku jëfe lu alxuraan santaane yàlla fay ko waaye ku ci àtte kuy àtte naan yàlla nee na it ci alxuraan àtte bu maanu ngay àtte ndax yiy boole nit ak nit ba am lu muy yëg bay doxe yenn doxin yi doxut diggante yàlla ak kenn waaye kuy woote it jaarale ko ci nañ teg suñ tànk ci alxuraan it li feeg ma ma nga ca ci yoonu wu jub xocc la jaar mooy téere bi nga xam ne lu ca way mos ci xam day mel ni kuy naan di gën di mar loo ko jox mu gën a soxla lu ko ëpp neexitu aw neexitam moo deme noona day dundal ak ruux waaye bu ko làmmiñ di tudd nga di ko dégg doo dégg mukk ñu ne wàññi leen rajo bi ndax neex ci ci ak ruux waaye nag ku topp ba kanam doo ko gis mukk mu wax jëm ci alxuraan ndax alxuraan bakkan nekku fa waaye ku ne ko fi njukkit jaar ci weneen yoon jël beneen téere bu koy won fu muy jaar fa muy mujj mooy fuuf fii rek fuuf fii fan mooy fii bokk yi alxuraan moomu ñun jullit yi ko gëm dara dara ci àdduna duñu ñu ndax lu ci nekk la ca weesu woon nett lañu ko ñu xam ñooñu fu ñu mujj jamono yi ñu dund saa boo xoolee gis lu lay àtte sa diggante ak moro sa moroomam jaam ci biir alxuraan rawat nag la ca kanam àggaguñ ca boo demee ci alxuraan mu wax la lépp boo dee ku mën a ku am xayaal bu xóot maanaam di jeneer daanaka xaw nga koo mën a bind ne la muy wax nii lay mel euh, alxuraan moomu nag yàlla mi nu ko yónnee wax na ca ne su ngeen waxee ca kaw dëgg la ñépp dégg na ko waaye la ngeen wax waxut ca suuf te di ko waaj a wax xam nga ne dangeen ko wax yàlla xam na ko waaye la ngeen nar wax waxe ca kanamit yàlla xam na lépp wa in tajhar bil qawli fa innahu yaalamu sirra wa axfa loo ca làq rek xam na as sirru nag nee nañ mooy loo xam ne yow mii di ko wax xalaat nga ko ba ràbb ko ba mu jub te waxuwu ko kenn na nga xam yàlla xam na ko soo waxee ba noppi la nga rabbagut yàlla xam na ne bu ñu àggee ci bi sàngam na nga ko ma a ràbb noon la wax ci alxuraan amut lu ne ci kaw suuf si wala asamaan si te yàlla xamut la sa nekk lépp lépp lépp la weesu liñ dëgmal ak li amagut lu ko tee am ak bu amee nu muy demee fu muy mujj kooku nag ku ko gëm te muy dëgg ci yow dara du fàtt sa bët dara du fees sa bët itam nag alxuraan moomu ci lañu yàlla leeralale ñetti kuréel yi am ci nit ñeentu ñeenteel amu ci muy ku gëm yàlla dëgg-dëgg ak ku ko weddi dëgg-dëgg kan na ci seen diggante nag moo bari lool ki gëm yàlla dëgg-dëgg mooy al mu'minu ak la ak iman di àndal lépp ñi ko weddi tam seen mbir leer na ñi ñii seen mbir leer na ñee seen mbir leer na ñi ci diggante bi mu'min ak kaafir ak munaafiq munaafiq nag la mbiram lënt nit ñi te leer nañ ci suñu boroom bi ko sëñ bu mag bi jàngale laaj na mën na amu ëpp ko ñaar ñu xam sëriñ Mañaw Silla ak sëriñ Maxtar Bintaloo mën na ko ëpp nag ne leen alxuraan ñaata maska moo ca nekk kii ne man de xawma ko waaye xam naa dana bari kii ne xamaguma ko danaa ko xam boo ma ko leeralee mu ne ko lim bu bari bi nga wax lépp de weesu yetti masque rekk la masque ak yet mooy fatxa masque ak lonk ñi naan ko rafa ñu naan dam ak masque ak néeg ñu naa ko sukkoon mu ne leen nit ñi noon lañ noonu lañ xaajaloo ñii gëm nañ yàlla te dutuñ ko weddi mukk tàlli nañ ni masquerade tàllee masquerade googu sax sëwru am nañu koy tudde sawru aw yat jub na te dutuñ dëng mukk masque néeg gis ngeen ko dafa tëju te dootul ubbi ko mukk waaye ñooñu ñooy yéefar ñi ma njëkk a wax masque gi mooy jullit yi masque ak néeg gi mooy yéefar masque ak lonk nag mooy naafiq moom seytaane daa daa ko bëgg a dajale yaari casam yaa ci kaw cat bi ci suuf ak bi ci kaw mu doon makk ak néeg ni moom jullit yi bëgg koo jubal tàllal ko mu doon aw yat waaye day ticc kooku nag yàlla waxoon nañ ci alxuraan seenu melokaan ba mu naan jullit yi jóg leen bu ngeen manee ak bu ngeen mënut te jihaad fi sabilillah jihaad nag boo ko tuddee suñ jamono am nañu seeni fit di dem te jihaad baat bi tekkiwut lu dul jànkoon teg sa bakkan infiru xifaafan wa thiqaala wa jaahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dalikum xayrun lakum in kuntum taalamun danne ne yéefar yi taxu ñu may wax masque yi néeg yi taxu ñu may wax yéen masque yat yi ñoomat yéen ma tax di wax daan ne yi lonk yi nag su baat boobu jibee suñ xoolee njariñ nekk tax mu wóor leen ne bu ñu demee danañ am dara danañ bokk la leen yóbbu du yàlla mi woote moo leen yóbbu waaye koom sa cay feeñ lañ yaakaar fañ jimit bu soree wala mu laaj bakkan ñu ruusaanu law kaana aradan qariban wa safaran qaasidan lattabacuuk walakin baaxudat alayhim shuqa ci ab xare xaswatu Tabuk kon ku ngeen gis mu mel ne daa bokk ci jullit yi te léeg-léeg mu wax lu yóbbu loxo gémmiñ tey leen ci mbiram gis ngeen la muy wax wàññiwut yàlla dara wàññiwut yonent bi dara waaye nag am na boroom xel yu gàtt yoo xam ne loolu daf leen di xalaat loo yàq ga tàmbalee moom lay wax ci alxuraan ne jullit dëgg-dëgg moom yow yonent bi nanga xam ne du la laaj nu ñuy def maanaam daal sëriñ Muntaxa xafidahullah waxoon na ko nee na moom ab sëriñam du ko laaj ndigal du ko jox ndigal da koy bàyyeeg boppam moom day dem jox ab sëriñam boppam bàyyee sëriñ baak boppam noonu la ab jullit di def digganteem ak suñu borom jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent bi julit dëgg-dëgg moom du la laaj ndigal du la jox ndigal day jatu rek ni soccat saa boo nee xëpp fekk na moom laa yas la ya laa yastadinuka alladina yuminuuna billahi wal yawmi al axiri an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alim bi waaye ñi nga xam soo ma joxoon kees gee dama defaral la ko na nga ca teey boo ko joxut du ko defar innama yastadinuka alladina laa yuminuuna billahi wal yawmi al axiri wartaabat qulubuhum fuñ toll dañuy dengi dengi lii ma nekk wér na waaw wala wérul fu tooy mu dal bu foofa fendee mu sikkal ko di xool feneen fu tooyat mu dali fa mu mel ne dañoo laaj yàlla ñooñu lu ñuy defal ñoom koo xam ne sol na mbubb mi nga sol di wax li ngay wax léeg-léeg mu di ko def ni nga koy defe te lii la ëmb noo koy xame mu ne bàyyi leen ko ci seen biir ndax bu ngeen ko génnee yàq gën faa bari ndax foo ko fekk tostan na fa bokk yi tostanuk jaan ak tostanuk ganaar nit ku amum xel soo ko tànnuloo tostanuk ganaar lay jël ndax tostanug jaar jaan njabootug jaan yàlla rek xam lu muy jariñ waaye ñun bëgguñu dëkk ak moom bëgguñu koo gis bëgguñoo xam fu mu nekk waaye mën naa dëkk suñ biir kër duñ ko xam li wérte wóor mooy kuy xont tostanug kanaar ngay ton ngay xont wala kanaara ak bokkam waaye tostanug jaan moom kenn amut xelum di ko xont xanaa tey nit nee na ak naafiq nag bu ngeen ko génnee tostan na fa mu nekkoon yàq na fa ñu jur na fa ñu bari génne ko amul njariñ te yàq gën a gën a bari su génnee kum gis mu xam la yàq na la saa su ne mu wax la ci loo tax nga war ko bàyyi te am na ñoo xam ne lu ñu dégg jàpp ca la euh, law xaraju fiikum ma zaadukum illa xabaala yàqu gën a bari ndax dañuy dox ki seen diggante yéen ñii ak ñeneen ñu bari ñoo xam ne dañoo waroon a dégg gindiku dégg yonent bi sallallahu alayhi wasallam gindiku ñëw ci moom waaye buñ demee boo leen fa yóbboo tostan gi may wax mooy wa fiikum sammaawuna lahum day am ñu fi bàyyi lu ñu fi xam wax leen ko yàq gi gën a bari moo tax ab jullit su gëmee alxuraan gëm yàlla di fas yéene teg fekk yonent bi tegoon du tontu du geesu day xam ne ku nar alkoo nga nee rek ndax foo ko fekk rek yàlla noppi na ca moom mooy fi muy waxee ne walaw alima allahu fihim xayran la asmaahum walaw asmaahum la tawallaw wa hum muridun am na ñoo xam ne yàlla bind na seen texee di ba noppi te bu leen déeyoon déggloo leen ne kii mu yónni mooy ab yónnentam fu mu teg tànkam teg leen ko fa nee na su suñ ko xamoon itam duñ ko dañuy lànk lànk kandar lañuy def ndax la ko waral moo yàlla àtt na leen ba noppi xanaa ku ci tuub waaye li feeg na nga ca yoon woon jëm buñ ko wàccut fa ñu jëm du baax kon boog koo seen muy dem koo dégg ñoo ñuy wax ay tànkam yu dëng na la wóor ne ka koy wax moom daa toog moom demul demut ki nga xam ne daa bëgg foo teg sa tànk mu teg fa ab tànkam nu mu lay jiitoo lay jéem waaye xoolul sa tànk yu dënk waaye kanaan xool leen ko na muy doxee moom kooku demul fenn daa toog ku ñëw danga ko fa bu jàll. gannaaw yàlla nag mën na lu nekk tëlewul dara mën na fee jël nit ki saa su ko soobee ni mu ko fi indee woon yàlla na na fi bàyyi te ñuy gën a teg suñu tànk ñun fekk yonent bi tegoon ak lu laal yonent bi bokk yonent bi sallallahu alayhi tànn ko suñu boroomam tànn nag soo ko déggee ci wenn xeet lay doon bu ñu tànn jiwu gerte ci gerte lañ koy tànn ci biir gerte seet yi ci gën a baax yañ yaakaar ne bu ko jiyee dana sax ñu daan tànn jiwu dugub it wala tiiñ wala feela walla saajo duñ nekk bañ góog ko ba noppi waaye ci biir tool tool ba lañuy dem di xool wuñ ca gis mu am yaakaar bala ñoo tàmbalee mboolu ñu dagg ko denc bokk yi nit ki kenn mënut a wax ne reyam jee ma neex ci moom ni muy peñee kawaram gi moo ma neex ci moom mën naa wàcc sax ba ci li muy sol moo ma neex ci moom bàyyi la ca des mënut a nekk mu ne si gëm yàlla ak li muy ànd lépp ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngay seet ci yonent bi ak lañ bat gëm yàlla ga wér loolu bokk yi nag mat naa tiit gis nga foofu ku fa nekk yàlla waxoon nañu ko nañu bu ëllëgee dana am ñu gis mbëggalum suñuy boroom ne yàlla delloo ma àdduna ma jaamu la fa yàlla nee na loolu ñoom tàmm nañoo fenn buñ ko fa delloo it boo ko delloo woon àdduna it lam doon wax lay waxaat bu ne cëpp ba ba mu war ko ni fii àdduna bu yendoo fa naan gis xamee penk ko sow tàmbalee waata wax lam doon wax walaw ruddu la aadu du nuhu anhu wa innahum la kaadibun ne koo xam ne daaira bi mu bokk ab daaira daaira lu nekk am na ab daaira weesuut lu dul lay tekki ab kuttumbal am na daaira boo xam ne mën na si leen tudd daaira fenkat ya duñu wax mukk sax la yàlla dogal ba noppi li yàlla dogal ba noppi bokk na ci kay di ñëw góor la suñ ko tàndalee rek mën nañ caa bu ñëwee jigéen day doom ku ca bokk nag nga xam ne yow lu ne mën nga ko wax mën a ànd ak ku nekk bu cëgg di si nga tàggoog moom sikkal ko kooku bokk yi ay waxam jot sa déglu soo déggee mag ngi daal wax ne digut ay waxam sa duma sa doom mooy day ñëw ne la sa doom kat fee ma ko gis mu dafa taxaw bu du fa taxaw nga ne ko ndax terewuma la woon foofa doom ji na aha yi nga jàpp duma boo demee fa mu doon wax laaj ña fa taxawoon ñoom doon sa doom mën na caa bokk ndax day fenn fenn nag jàngoro la joo xam ne ji moo raw sax jàngoro yi wàlle moo ko raw ci yàq ndax ki koy def ñaare melokaan wi mel day yaakaaru lool mën naa am sax mu yor dara lu nu yëpp bëgg saa bu fa nit ñi dajee bu ñu waxee ñaari ba ñett rek bu ci duggee tam fen tàmbalee tàmbalee dëgër du àndandoor du wéttal du waxtandoor Euh, te xamut ne fenkat boobu du xam ne lan doon wax fi ab néeg ak ñam ko doon waxal ñooña mën nañoo dem mën nañoo bañ a dem di ko tasaare ji waaye nag du suñ jamono ji moom nit day dugg ci ab néeg moo kenn nit wax ba àggal adduna bépp jot ci xam nga ku ci tiit jàq xam ne lu ne mën na koo dal ndax bokk yi tudd yonent bi tudd yenn baat yi sallallahu alayhi wa sallam réew mi dong lañ ko sañe waaye am na faf ku ko fa tuddoon tudd lenn danañ ko wër faat ko te da koy jar dañuy jàngale ci fiq ne ab yéefar sax su ŋàññee yonent bi wax ci moom lu ñagas lu bokkut ak gëmu ko bu ko neexee mu ne gëwuma ko mu ne gëmu ko moom ndax yàlla ne woon yow yonent bi qulil xaqu min rabbikum fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur afa anta tukrihu nnaasa xata yakunu muminin la ikraha fi diin su waxee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu bokkut ak moom gëmut ne yonent la yam ca na ko dañ ko ràññ maa ngi jégalu maa ngi tuub amul benn amatul benn sens fi mu toll ndax seytaane day gemb waayam mu wax loo xam ne nit ñi dañ koy tàmbalee xalaat ak ku mën a doon mën nañ ko wax ci ku ne bu paaka ba ngay génn mbaram mu ne jégalu na ñu ne ba jégal leen ko daa yaakaar ne foofu la yem déedéet moom la alxuraan di wax rek na ngeen xam ne lu ngeen yàlla dara umpoo diggante asamaan ak suuf ñett ñu toog moo leen ñeenteel ñeent ñu toog moo leen juróomeel juróom ñu toog moo leen juróom benneel lu lim ba gën di bari fu ñu limee ba yam fa yàlla ca su ko defee nag ëllëg ngi ñëw te yàggatut bokk yu ñu baree bari ñi gën a siiw di wax yenn wax yi kenn ku ci yaakaar dund lam du laa amul bis bu set ñu gën di jege sakrafal mawt loo xam ne yow dong yaa koy gis duñ la laaj bu dee ci li ñu laaj ci jamono la tarixa ba bokkoon duñ la laaj bu dee ci parti politique bi parti ba bokkoon fooy milité déedéet ko tal sax tàggoog lii nga gis dong ngay bëgg te mënta nekk soo mësee wax benn baat jëmale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana yàgg dana metti mën na gën a yàgg sa dund te nit ñi duñ ko xam dañ naan ñaata xanaa moom tëddutoon ñu ne ki suba la ko daaneel daal di koy faat gis nga faat googu yàlla da koy taw yi muy metti di tar ba mu ëpp at yi def ci kaw suuf loolu yow mën naa xam ci film yi film yi ñaata at lañ koy tourné dana ci gis réew sàngam gis ci réew sàngam mu wóor réew sàngam réew sàngam mënu si ko dox ci benn bis waaye bu ñu la koy tegal dañ la koy tënkal ci fanweeri minute nga gisoo loolu lépp yàlla leen ko dàq moo leen dàq xasr takk jamono mu gàtt moo leen ko dàq taw yi kon boog ñun ñi gëm ne alxuraan waxi suñu borooma lu mu ci wax danañ ko gis ku gudd fan da nga ko gis boo ko xasee ba xam ci alxuraan ne nangam la soo doxee tuuti da nga ko gis moo tax yal nañu yàlla saxal ba faw ci gëm yàlla ni ko ab yonentam jàngale ñun mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa léppam lañuy ñuy jël junj naa léegi ne yàllaa ko tànn ci nit ñi waaye tasewut ak ku nekk rek tànn ko ca moom da ko waajal yàlla tànn na ci biir bindeefam yi nit ñi ne leen jëfandikoo leen lu ne ci kaw suuf te mënees koo jëfandikoo moom mu daganal ko moo ne ñoom ñoo ñuy jëfandikoo ñëpp dañoo am ay waajur dañuy am ndey ak baay lekk leen xar yeeg ganaar yi ak yi ñuy àndal ak nag yeeg lépp ku ci nekk am nag njabootam xanaa nit moom war naa xam ki seqal kum doon teraanga jooju ku la ko defal da ngay dégg fi koo xam ne dañ koy fal rek loo xam ne benn fan ñaari fan mën nañ koo nangu ci moom mu taxaw ci mbooloo mi maa ngi sant diw ndax lii ma yor moo ma ko jox fàtte na yàlla loolu moo ko koy xañ li ma yor diw moom ma ko jox déedéet daa jaar ci moom rek te yàlla waajal na ba noppi bu ko jëlee ci sa loxo ku mu koy teg ci loxoom. تلك الأيام نداولها بين الناس yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam yàlla tànnaat ci biir nit ñi ay anbiya ak i mursaloon tànnaat ci seen biir ñaar fukk ak juróom yoo xam ne mi ngi ci alquran ñi ne ëpp na ko ñi ne yées na ko benn ñi ne ëpp na ko benn mu tànnaat ca juróom xanaa tànn gu tànnu la ndax moo gën a xam lépp dellu ca tànnaat kenn mu jiite leen ñoom ñépp te mujj gi mu fi mujje ñëw bu mu tax ñu defee dafa tardé maa ngi jégalu ci baat bi déedéet ci waxu arab bii nañ ci bi doon wax sallallahu alayhi wa sallam wàcc ci nee nañ des na jiital koo xam ne mooy moo moo mujj gannaaw cib lim dees na mujje koo xam ne moo jiitu taxiirul mutaqaddim taqdimul mutaaxir ak taqdimul mutaaxir ak taxiirul mutaqaddim waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxiirul mutaqaddim la maanaam mujj gi mujje ñëw moo mottali lépp kooku nag ñun jullit yi yi gëm yàlla gëm ne alquran waxe suñu borom a jaar ci muhammad sallallahu alayhi wa sallama dañu koy ngoy ngoyaale ñéppam dañu koy ŋoy ba mu dëgër ñu ngoyaale ñépp ku mu am rek ak ku ko xam tam jaral ñu lu nekk nag wet googu moom lañu ci dimbale kaf mënatu cee jëm ndax loo xam ne bokk yi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama am na ñum jaraloon ñu faat faat seenu njaboot xañ leen seen alal jëpp ci benn bis la taxoon ñu di ko def mooy yàllaa taxoon ñu di ko def te yàlla jógu fi ba fi mu nii am na ñu ko jaral loolu moom li wax di ubbi ko lépp ak lu waaye neex wax nañ ñu nañ ñu tiñ moom nañ tiñ jullit yi ci di wax yonent bi di ci teg ay baat moom loolu moom maytuñ ko kenn kenn kum neex nag mën ngaa dem fa ñuy kalaamee ne diw dafa tëkku nit ñi ay ca nay tay suñuy maam rey nañ leen ci jéem a liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi seeni maam yàgg ci réew mi tuuti ku ne mën ngaa tudd sama maam diw dañ koo raj ci jihaad fi sabilillah te lu lu taxoon mooy li li yàlla yónni li bi sax fi kooku nag duñ bàyyi ku jóg def ko sa këllub fowukaay loolu mënut sa nekk moom kay nañ ko bàyyi ci nii wala ca nañ ko bàyyi ngir fàttaliku sukkuraat su metti ak atteb ëllëg ak kersa ëllëg benn wala bokk kenn duutu ko may kenn ku ko ku koy waaj nag bee boo nga waaj foofu laa ci yam tuub tuub naa du leen tax a delluwaat waxaat ko dafa yomb lool walaw ruddu la aadu lima nuhu anhu wa innahum la kaadibuun fen day jàngoro ji ne si ñoom dëkk ak ñoom ñu def xol ñu def fen ci seen biir xool ya di ko dund di ko dund boo ko làkkee danañ ko xam am na ñuy wax enjoy sama enjoy mooy moom lay dund am na ñu dund fen luñ dugg bu ca fen nekkul génn nañ ca yal na yàlla boole ci ñi gëm yàlla dëgg te nekk ci lislaam ba ba ñuy faatu dekke ci yàlla na boole dëgg ci ñi nga xam ne dañoo nekk ñooñ muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaxfiru llahu lana wa lakum wa li saa'iri amin شكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني الحمد لله الكريم